ma gërëm leen sant leen bu baax a baax information yu wérte wóor alaaji Malick ci kaddu gi ñu commencé ko xibaar yi bala ñoo dem dem ci sponsor bu mag bi di kii di diaspora sopp na bi nga xam ne képp ku ko xam ñi ne bitim réew daanaka mooy li nga xam ne moom la di wër ma nga noonee ci li nga xam ne mooy terrain yu mucc ayib bu ngeen ko soxlaa numéro téléphone yi mën ngeen cee te terrain boo bëgg rek ak foo ko bëgg ci biir réew mi am na foofee nga xam ne daanaka mooy diaspora sopp na bi ñu ngi fële ci euh, zago bi bu ngeen wootee ci numéro téléphone am na whatsapp am na lépp am na yeneen muqus yoo xam ne sax danañ leen ko ci tegal lu jëm ci maanaam terrain yoo xam ne mën ngeen a fexe ba fay ko ba matt du ngeen am benn jafe-jafe loolee dañ ci dikkaat ci yeneen xibaar yi waaye tey dañ leen indi rek ceebo mi euh, solo bu baax a baax ñu commencé ko nag xibaar yi ak nga xam ne mooy Cristiano Ronaldo wax naa leen ko mbégte mi mu àndal tey yi ak ñancoo international euh, sama waa nga xam ne fële ci Arabie Saoudite tàggatu gi ne def nañ ko bala ñu dukki ci ñoom Arda Guler ak consort nga xam ni ñoom ñëpp kenn comme ci man doon am na taxawaay boo xam ni am nga ko ci football meilleur dañuy jóge foofee uh, ca Arabie Saoudi ñu coow nag daal di dabbar ñi uh, dugg fële nga xam ni uh, moo nekk Italie Italie nag bu ñu fa duggee Espagne wala boo Italie bu ñu fa duggee kii di Paris Saint-Germain ak Nasser Al Khelaïfi dañ koo bëgg tas ndax loolee mën nañ koo xalaat 130 millions d'euros moom la ñu bëgg a jënde ki nga xam ne daanaka mooy Victor Osimhen moom Paris Saint-Germain teg ci taabal ji 175 millions d'euros pour ki nga xam ni mooy Raphaël jël euh, Léao loole nag daanaka bu fekkente ni sotti na dana nekk coup boo xam ne bu am solo ndax kii di Paris Saint-Germain bu ngeen gisee taxawaay boobu mooy mbappe mi lànk ni day dem ci Real Madrid wala day génn ci club boobee amuñu pexe nag te danañ soxla ay attaquant yu ama am solo moo tax ñu teg ci taabal ji ñaari gone yooyee Arda Güler yéen ñi ko doon laaj boo amul sens fi fin de saison bi Real Madrid dana ko jalax jalax ko mooy maanaam bëgg na ko bëgg goo xam ne du ko jaay kenn da koy able bu ko ablee ba mu gën a nekk nandate mu daal di koy indiwaat ci club boobee bu ko defee ñu man di doxal di gundaandaat fële ca équipe bii di Real Madrid gone yi di naan ko gone yi sol mooy weex yi beneen bi ci des mooy équipe bii di Liverpool nga xam ni soxla na ab entraîneur am di Jurgen Klopp bu saison bi jeexee daa bëgg a jël ay bagages yëpp nag ah, dugg ci ay fofal naaw ñibbi fa mu dëkkoon ndax bëgg naa noppal wala mu dugg ci yeneen bagage loole nag mooy tax ñu jàpp ne ñetti entraîneur yi ngi bu fekkee bëgg nañ ko mën nañoo yor seen cëggal guy ah, si ne Mourinho Zinedine daan ak ki nga xam ne mooy Antonio Conte di ñett ñoo xam ni fii may waxee jaw Euh, tous tasar daanaka euh, nekkuñu ci lu dëgër Xabi Alonso nag mi ngi ci lu dëgër loo xam ni euh, fële ca almaañ moom moomee du neex a diri di ko yóbbu benn club.